asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci wenn waxtaan wu gàtt rek euh, jëm ci diine ji ñu bokk bala ñuy tàmbali nag euh, danañu delluwaat di jéem rekk di laante biir ci suñu diggante ndax nag ni nga xamee ne noonu la doomu aadama mate noonu lay defee léeg-léeg ak matadi léeg-léeg yéene ji dana baax lool waaye ay njuumte di ci am kon nit ki warul bañ ko koy jubbanti su fekkee ne jubbanti gi jaar na yoon nga xam ne lii ñu la wax sa njëriñ la njëriñu communité bi la yaakaar naa dañ ko déglu mu jëm ci suñu mbokk oustaz sàll muy jàngale diine di ci liggéey liggéey bu rëy boo xam ne bi kenn nattablew ko ndax nag wax dëgg yàlla mi ngi def lu mu mën Omar Sall waaye man de su fekkee dama koy natt ci sama nattukaay bu manqué bi samay jàpp ne daal du wodd ay waxam ndax nag wax yi euh, dañ koy indi delloowaat ko ci ki nga xam ni moom la yàlla yónni woon ci ñun suñu borom da ko wax ba tàyyi ne ko dee ko waxee ni mu gën a rafete dee ko waxee ni mu gën a jotalee dee ko waxee ni mu gën a yiwee ñim fi bàyyi woon tamit ñu wuutu ko fi saxaabatul kiraam noonu lañ doon doxale mag ñi nga xam ne itamit ñoom tey jii bu ñu amee ci diine ji benn jeexital bu ñu amal njëriñ ñoom it noonu lañ ko doon doxale am ñoo xam ne xëy na léeg lekk booy wax ak ñoom faw nga xaw ko ñagasal ndax noonu lañuy ñuy déggee waaye nag li ci ëpp daal di ko wax mu gën a rafet daal di ko wadd moom dana ci baax lool ndax dana tax nag nit ñi gën laa ñeme ndax ñun dafa am ay expression yoo xam ne yi moom la ñu baaxoo di jëfandikoo te expression yooyu gis naa ne léeg-léeg da koy jaxa jaxase da koy jal da koy jalgati xam nga bi muy wax ci thème bi nga xam ni mooy jàng alquran euh, pour ku faatu am na lum ca sërxal danaa ko indi mooy sa baay dee nga rey baayu jàmbur wax boobu amul foofu place foofu laay jëkk tàmbalee amul foofu place xanaa kon sa doom bu dee waroo rey baayu jàmbur xanaa kon booy takk jabar amuloo droit rey baayu jàmbur wala rey doom bu jàmbur xanaa kon boo xiifee waroo rey baayu jàmbur déedéet loolu du wax bu rafet te jàpp ma nit nag yenu na maanaa ndax nit bu faatoo ñu rey benn gàtt togg ko sarax ko wéy dawlu yi wala ay mbokkam ya ñëw di jaale si ndax ku faatu ñu dem jaale ji la loolu kenn mënu koo dindi ci réew mi bokk na ci sunu urfu te kenn mëntu ko mënu koo def def safa te defoo safaan nit lum la lu ngeen seq muy sa collègue di sa dëkkandoo di sa di sa di sa bu mbokkam faatoo boo demul jaale ji ko ko yàq nga loo xam ne lii bañ moo moo gën yàq nga loo xam ne moo gën su fekkoon da ngay topp naan sunna sunna sunna ñu ñëw nag ci wax ji nga xam ni moom moo indi coow li am na ñu bare ñu ko ci tontu coowu jàng alquran ci ku faatu ndax am na njëriñ ci moom wala amul njëriñ ci moom boroom xam-xam yu bare te yu baree bare bare nag ñoo ci wax wuute ci wuute yu baree bare nag te du ñu ay como ñooñu ci wàllu diine bi am ci du ñu ay como te bokkuñu ci gis-gis ñoom kenn ku ci ne am nga ci sa gis-gisu bopp gis-gis bi nag mënta weesu di indi xadiis bu wér wala nga indi dalil bokk ci alquran wala ci ci ci sunna li am mooy lan mënuloo nit ki saa la arrangé nga ne li wax dëgg la boroom xam-xam la ibnul qayyim bu la arrangé nga ne ibnul qayyim bu la ibnul qayyim arrangé wul nga ne la mu indi baaxut déedéet noonu kenn du ko dunde diine euh, ñàkk sax gi jàngum alquran ci sunna pour ku faatu loolu kenn nat tablew ko wérut ci sunna saxul ci sunna waaye léegi ñu def benn parenthèse ci sunna ñu def benn parenthèse ci sunna ndax sol ay lunette yonent bi da ko fee bàyyi woon wala saxaaba yi dañ ko fee bàyyi woon te ndaxam ñi ngi koy def kan moo ko mën a dind ci sunna kan soo koy dind ci sunna loo koy dindee takk montre nga àgg ba am sax fitu di ci xool heure di ci xool sa waxtu dog ndax yonent bi da ko fee bàyyi woon sa gémmiñ gi bañ yi yàqu ba muluñ nga jëm wuti dàncee dugal ko ci sa biir gémmiñ gi ngir nga mën a xool gémmiñu nit nit ñi mën a xool sa gémmiñ boog sax ndax loolu yonent bi da ko fee bàyyi woon mën naa fee toog di ci lim yu bare yu fi bi bàyyiwul yoon yoo xam ni nit ñaa ngi koy def wala ñu ngi koy wax te kenn mënula indi benn xadis buy dàq loolu kon faaw ñu def ndànk nag ci daganal geeg xaraamal geeg saxal gi ci sunna ak weddi gi ci sunna fokk ñu def ci ndànk alquran benn aaya la nañ ko indi wa nunazzilu min alquran maa huwa shifaau wa rahmatun lil muminin waaw shifa boobu kan moo xam mooy lan ci alquran shifa de xam nañu tekki gi lu muy tekki mooy faj saafara waaw nan la suñu borom di saafara ci alquran boobu kooku kenn xamu ko ku dul ki mu yónni woon ci ñun wa rahmatun rahma boobu muy wax nan la koy manifester suñu borom est-ce que mënta jaar ci nga jàng alquran ji mu doon leer ci ki nga xam ni kii moom nga ko yéene loolu yëpp nit xamu ko kon dañuy teey ci yooyu dañ ciy teey xadis bi nga xam ne moom la invoqué xadis bu wër cëng la te it dégg ga jafewul yàlla suñu borom wax na ci alquran ay wax yu bare wala taziru waziratun wisra uxra loolu lu wér cëng la bés penc ma kenn du yenu sa sëf bàyyi sëfu moroom sa sëf rek ngay yenu wa an laysa lil insaani illa ma saa nit it mënta am pay gu weesu la mu jëf loolu lu wér cëng la parce que kon day doon absurdité ci kaw suuf xadis boobu wax ne ñett dalay topp boo fi jógee mais ñett yooyu ci jëfu nit la bokk parce que doom ji nga yar ci lii lislaam mu am jikko yu baax jug nga jóge fi muy jàng lu mu alquran wala muy def lu mu mën a def yéeneel la ko mais kooku ci sa alal la bokk parce que yaa ko faggu teen bi nga gas waxaalewuñu ko daara daara ji nga def tabax basang yi nga jënd ndaaya nga def ci jàkk ji kooku ba tey say jëf la yuy wéy loolu ku ne xam na ko kazalika xam-xam boo fi bàyyi dongo boo jàngal mu jàngal keneen yooyu yépp say jëf la kon loolu lëntul umpalewul li nga xam ni nag moom mooy doon absurdité mooy jaam bu nekk fii ci kaw suuf yàlla sant ko tere ko jaam ña nga xam ne ñii nangu nañu ñoom moytu tere yàlla ya la mu santaane ñu cay nar-nari di ca def luyu mën ki nga xam ni moom defutoon waxutoon jéemul ci santaane yàlla yi dara bàyyiwul ay tereem mu faatu kooko doy na ci rek su dee jullit la ñu sang ko sang ko jullee ko ndax jullit la mës naa këpp jëwam bi ci suuf wan ko ginnaaw doy na ci sëkk nag ndax nag kooku giiru dundam wone woon na ak màttayam ak féttéer lu kanamu boroomam sàmmontewul ak ak dogo digalu suñu borom sàmmontewul ay tereem kon loolu xel mënta nangu nag nit ki di dunde nu ko neex dee nu ko neex faatu ñu jàngal ko alquran alquran jooju di ko texel xel nanguwut loolu donte nag suñu borom moo moom jaamam yi lu ko ci soob def lu ko ci soob def waaye alquran aaya yi nga xam ne ñoo dikk di saxal ne nit ki ni mu doon dunde ci kaw suuf noonu lañ koy faye ëllëg aaya yi ci wàcc ken xamul nu mu toll yàlla nee na i'malu fa sa yara fa sa yara allahu amalakum wa rasuluhu su ma summa turadduuna ila aalimi alxaybi wa shahaadati wa yunabbiukum bima kuntum taamaluun kon loolu lu leer naññi la jëf leen yàlla dana gis seen jëf yi yonentam bi fekk seen jëf yi dana gis seen jëf yi da ngeen dellu ci ki xam li nëbbu xam li fàddu dana leen gaaralal seen jëf yooya ngeen gis ko kon jëf la yàlla wax xalaat bu rafet ci jëf la bokk wax ju rafet ci jëf la bokk xalaat bu ñaaw jëf ju ñaaw ci jëf la bokk kon nit ki dafa dul yenu maanaa mu nekk ci kaw suuf di jëf ba ay jëfam jeex ñu jël leneen di ko ca jëf lu di ko ca yokk lu dul sadaqatan sadaqatun jaariya bii nga xam ni moom la hadis bi wax sadaqatun jaariya rek a ko ci mën a fekk ak doom ju baax jooju ak xam-xam boo xam ne da ko fee bàyyi woon loolu la xel nangu nekk ci sa bopp di càccambal ba dee nit ñi daje di jàng alquran di kifin yooyu wax dëgg yàlla cinéma la gën a nuyu ñu ñëw nag léegi ci façon jàngin bi nag nit ñi ni ñuy jànge kaamil moom dèjà moo yaakaarawul ku ne xam na ne alquran wax dëgg yàlla aaya bii ma ci wax amul benn borom xam-xam bu mën a dikk di dindi baatu raxma boobu di ci firi lu mu lu mu xamut kon yaakaaru na ab jullit day yaakaar naa ne bu tiitee alquran lay lay lay wuti bu xemmemee alquran lay wuti bu jàqee alquran lay wuti bu feebaree alquran lay wuti wa nunazilu min alqurani ma huwa shifaau wa rahmatun lil muminin na muy fajeek la muy nañ cey nañ cee amee yërmande suñu borom loola nag yàlla faram fàncewul ko yonent bi ñu yónni woon ci ñu nit faram fàncewuñu ko ay nit a dikk firi ko ci xee keem fu ñu toll ci wàllu njàmbaar ak góorgóorlu kon yaakaaru na nit ki ñu jàng alquran waaye kan lañ koy jàngal xanaa ki nekkoon ci suuf bëgg alquran di ko jàng di ko jàngale di dimbali ñuy jàngale alquran di yar ay doomam ci alquran di moytu sant tere alquran di def santaane alquran xanaa kooku la ñuy mën a am yaakaar waaye ka ca des nag mel na man wax dëgg yàlla xel nanguwul ñu koy jàngal alquran mu koy amal benn njëriñ mu des nag comme niñ ko waxoon léegi njàngin mi njàngin mi moom na ma yàlla baal am na façon jànginu alquran yoo xam ne yaakaarawul ca fa suñu borom. ndax aadaab yi teggin yi nga xam ni moo war a ànd ak jàngunu alxuraan su ko nit ki remplirul nan lay def ba malaaka yi yégee jëf yi di yégee ndax am na façon jàngin boo xam ne bi ci wàlluñ respecté maxaarijul xuruf bi ñàkk respect respecté euh, euh, nu mu tuddati euh, tajwid bi ñàkk respecté aadaab yi nga xam ne moo yell ci alquran toog ci jàpp toog ci suuf jublu penku ubbi kaamil bi teg ko bañ koo teg ci suuf dégg nga jàng ko njàngin mu teey te dal ñu am jublu ca jaamu yàlla jublu ca tinu jublu ca noonu koy waxee tinu suñu borom mais loolu su fekkee ne remplir ñu condition yaat beneen wax ngi noonu ci njànginum alxuraan mi kon en jàng alxuraan yaakaaru na ci jullit jàng ko jox koy teggin moo tax ñu gën koo yaakaar mu des nag léegi kan koy jàngal kan la ndax nag sàmba booy boo xam dafa dund ci dundam num mu ko neexe dekkee nu ko neexe dee nu ko neexe laay bëgg a wax bala may wax àggaguñ ci dekki dee nu ko neexe ba pare wëlbatiku ñu koy jàngal alxuraan loolu xel nangu ko ki nga xam ne daal am nañ ci yaakaar ak sulëf mooy kooku te nag doom ji nga xam ni moom nag moom la bàyyam bàyyi ginnaaw moom mënta jàng alxuraan mënta jàng alxuraan waaye am nañu ko ko mën a jàngal nag am nañu ko ko mën a parce que jëf yooyu ba tey su fekkee ne doom ji moo lay ñaanal nee ñu ñaanu doom jooju dana la fekk si waaw kon doom ji moom mënta jàng alxuraan waaye fexe na ba gis ñu mën a jàng alxuraan te sellal ko te rafetal ko te baaxal ko su boobaat ko koy mën a dandal anamu ndax moom mënta def waaye am nañu ko defal kon kay nag su boobaat nañu tey ci dàq gi nañ ci tey bu ko defee daal mbokk yi loolu mënuñu ko woon a bañ a dolli ci wax ji asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.